Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi le bouton abonnement et te bul fàtte la la cloche de notification bi ne ngir tarder. tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. communication bu ñu koy ngeen di a deux mois de salaire mhm. kenn fayu vous Ni di dem ci troisième mois sans salaire xam nga la la mhm. école privée dafa am ñan nga dañu ci norme ak ñu ci norme ñu nekkul ci norme nak suñu yoon nekku fa suñu yoon fu école nga ci norme subventionné ñun suñu yoon examen bi ngay a bëgg jël yàgg na du tey. ñi nga xam ne contradiction ñi nga wax ne seen sa yoon nekkul ci ñoom. waaw pourtant boole nga leen ci bilan pour ñu war a bokk ci ñu war a def examen. tey bu ñu doonee meilleur élève nga jël nga jëy leen jaylee ko Sénégal maanaam bu ñu jëlee meilleur élève ñooñu noonu nga ne sa yoon nekku fa. Mhm. nga jël ko teg ko ci kanam ne Sénégal léegi comme tey sa warugar la tey da ñëw dimbali ñooñu. Mhm. léegi pour wane leen gannaaw pour wëkk leen. Mhm. nga ne non non non ñu tey. sen bagn set man bëñ ñu set yi laay jël alors que tay buñ la né les enseignants verts mhm. tey va enseignant vacataire légui buy dem di liggéey ci école ba nga xamné ne ce n'est pas reconnu tay enseignant bobu nu muy def te pourtant moom mita mhm. moom ministre bi day jël enseignant bobu yóbbu ko correction BFEM yóbbu correction bac ci enseignant bi mu wax ni école ba mu nekk considéré man mii di wax ak yow damay corriger BFEM bak lañ mo monsieur bu ma bañ parce que dama bëggoon dem vacances bëgguma ko sax. Mhm. liggéeyanteewu ma ko sax. Mhm. mais moi alors que ñun dañuy dem di corriger BFM di corriger bak Assane. léegi kooku non mais mais mais ah, Gassama dafa rafetul nga ne nga ne euh, am na ñu ne ci norme am na ñu newul ci norme. wa ça c'est pas du ressort de l'État. yow yow non tey lay wax lolu tey lay wax bu newul ci norme waroo ko boole sax ci sa discours. yow yaa ko war pousser pour mu nekk dans les normes sinon do ko accompagner. mais où est-ce que vous étiez depuis 2012 yow nga xamni amna école yi bëri. Mhm. amuñu amuñu sa droit nek école. kon yow xam na loolu depuis 2012 yaa ngi fii Sénégal nga ne teg le ministère de l'éducation kon. ministère xale yi di jang di. waaw ba ci bi waaw laaj professeurs yi ndax. école est ce que c'est reconnu. mais ñun nan la mëne fay sen xaliss yenn école yo xam le diplôme n'est pas reconnu. waaw loolu. xoolal loolu. nga limu wax ni état du Sénégal mi xam nako ko no na muut Anak mu ngi jéem a def li mu mën. waaw ñoom ñoo war a dimbali ANACSUP. waaw ANACSUP mooy agence bi di contrôler école yoo xam ne. Mhm. boo taxawlee sa école dafay ñëw bu nekkee si yow yow valide na la. Mhm. maanaam yow léegi top yaa top. topp parce que ANACSUP dafa lay contrôler pour que sa qualité jàngale nga koy améliorer ñuy xool enseignants yi ndax ñu ngi leen di fay ñaata lañ leen di fay taux est-ce que am nañu contrat est-ce que. am ah, est-ce que am est-ce que ñoom consulter nañu sax ANACSUP. yéen tane ngeen kon mais am école yo xam ne ANACIM demu fa. d'accord <laughs> am na école xam ne. waaw ànd demagu fa. ah te ñu ngi jàngale xale yaa ngi fay seen xaalis. d'accord xale yi dañuy toog naan est-ce que école bi dafay reconnu. Mhm. mais école bi du wax dëgg xale yi. d'accord man damay dem ba information mais du ma ci du ni daal. Mhm. école nangam euh, amul reconnaissance. Mhm. mais. du man maa koy yem wax ji ci kaw. am na ñu war a def liggéey boobu pour xam ko. ñoom ñu bëggee xam xam. non xam nañ ko as yow Bruno. léegi man li ma li ma li ma bëgg ñëw ñu waxtaan ci mooy. Mhm. Euh, gis nañu décision yu bari askan wi commencé nañ ko di ko di ko daaj di ko teg fële. waaw ndax tey le deux. mënees naa xaar askan wu taxaw wala boog ay professeurs yu taxaw ñun ñoo lànk jàng rajo. waaw yow Assane loolu gannaaw suba la rek <laughs> Assane gannaaw suba gii nag nag ñu bàyyi xel di ñu dégg. Mhm.

pour me corriger le ñu dinañ ko ni ab Youssouf Gassama dëkk parcelle unité 16. Mhm. day jangalé français amna na yu ko mëna may pour mu corriger ñu que mhm. lan fa lañ ko ah, ah, ma sama sama sama date de. Mhm. sama carte d'identité nationale. def ba <laughs> gis nga Assane nañu respecté nit ñi. sa benn wax avons fini Assane. 7 corona bi de. daf ñu simbi ba ñu set wicc. ñoo won suñu jikko yu bon. Mhm. insuffisance mhm. non mais c'est nous ah. la coordination des enseignants vacataires du Sénégal Et parce que oui et le collectif des enseignants du supérieur parce que les élèves si élèves ils se sentent sacrifiés par l'État mhm. de les jeter dans le bourbier. Ah, pour au moment où le Sénégal est enregistré sans au minimum 110 cas par jour. ça mm-hmm. ce n'est pas vraiment le moment. Ou bien, si ça devrait être le moment, mm-hmm. il faut enlever ou bien relever de gros moins. Tête mm-hmm. Kofofu, parce que Bruno, je crois que les, les élèves, les étudiants, tey nous mun nañu ñu jox ñu sax benn rubrique bu ndaw ci enseignement bi. enseignant dafa généreux. waay xol bu bon munul le Assane ça day leer. Mais là le prophète. tubaab nu mu tuddee yónent. tuuru jàngalekat la ko jox moi le prophète mhm. ça vient du mot prophétie prophétie vient de prophétie mhm. prophétie veut dire Djangale dara Djangale. ok mhm. donc le prophète sax tuuru kat la yor xoolal yenent bi dañ ko bala mo kon asan xam xam xamala asan bon mënuñoo reuy parce que boo rëyee mënoo euh, religion chrétienne

et lii nii dañoo ne soxlawu ñu fay ñu mais nañu xool nan la ñu mën gérer pour que ñu tra am transition au moins sax ñu yëg ñu. Mm-hmm. wala ñu woote ne ah Gassama yëg nañ leen. yéen a ngi def lii. Mm-hmm. vraiment nous sommes de tout cœur avec vous. Mm-hmm. mais nañ ci xalaat nañu waxtaan ñu xool. liggéey ensemble ñu sauver mbir mi ngeen wax seen xalaat ñu wax suñu xalaat ñu. tey tey àddina loolu rek la. tey Bruno ñu ngi naan. et eh, apprenons à vivre avec le virus. c'est bien possible. waaye tey ñun ñoo war a jàngal loolu Sénégal ñun enseignants ñun professeurs yi. waaw parce que sax ba ci ba ci biir sen biir programme bi nga xam ne. Ah. na sax pour bu ngeen reprendre le deux. pour hmm. jangal xalé yi. gis ah parce que nan la ñuy moytandikoo feebar. waaw ngir ñoom bu ñu jógee fofu dem jangal ko sen wa keur eh, effectivement azam ko gis nga li la parce que man man yag na def ay leçon SVT. Ah. bi may nek C1 CM1 CM2. bu ma ñëwee ma fekk sama yaay day day raxasu ci labo bi suñu hmm. labago ndox bi hmm. daf cee raxasu ma ne ma ne ko yaay fii kenn waru fi raxasu parce que dafa am ay microbe yan nga xam ne bët du ko gis te boo xoolee loolu mooy waral sa bir di daw ngay feebar di kini nii yow poussel ne le juddoo goo maa <laughs> donc rek xale lim xam <laughs> no def dina ko dem tari feneen mm-hmm. xale xale mo mel non effectivement donc tay ñun buñu jangalé jàngalee élèves yooyu et vivre ensemble mm-hmm. vivre avec le virus tay xale bi lol lay jëfé mm-hmm. xale lu ko maître am wax xale bu ko né mu teggi ko sa mu bañ xale la illa monsieur moo ko wax non lolou kenn ko dindi asal kenn ko dindi suñu monsieur mo wax li yo jëlee ko yokk sa doom rek. Mhm. lu ko jàngale katam wax. Mhm. même bu dee bu juumee yow nii asam nga bëgg a rectifier sa doom boobu day lank ne déedéet. yow li nga wax du noonu sunu monsieur nii la ko waxee. effectivement moo waral ñun responsabilité bu rëy la ñor. Mhm. le médecin ne tue qu'un seul malade bu juumee. waaye ñun génération la ñuy rey buñ juumee. moo tax juum waruñu. nous war ñoo nab ñu war ñoo prendre en charge parce que xel mu dal nous wara duggé ci xalé mhm. deux mois de salaire Assane bor yu ma dajalé liñ may sonal ma ñoo taxaw ci xam nga ni du ko du ko <laughs> ndax sama xol bu déjà la classe. <laughs> No, c'est les éléments vraiment dafa doy mhm. muy wax rek état tey ni ñuy waxee lan moo tax tey ñi apprendre di vivre avec le le coronavirus te tey apprendre ñu ñu vivre ak ñun sénégalais ñun ak entre ñun. d' abord mmh. ñun ñi nga xam ne ñun ñoo gën coronavirus. d' abord ñun bëgguñu toog ñu waxtaan ñu vivre ensemble. Mmh. coronavirus ñëw faagaagal ñëw nekk li ñuy rey après ñu ne non ennemi boobu nañu vivre ak moom <laughs> nga bàyyi sa doom ndey mii mmh. toog sa doom bàyyi mii toog. ki ngay liggéeyal nekk nit ni yow. yàgg fay ay impôt bàyyam yàgg fay ay impôt. Hein? nga bàyyi kooku apprenons à vivre avec apprenons le à vivre avec lui nga bëgg apprendre à vivre avec le coronavirus mais écoute Lolo, c'est c'est c'est c'est c'est tey jii ni